croustillon soxna nuyu naa la. nuyu naa la xanaa mën ngay jàppale ak sa bleu bu baax. ci yow laay topp si sa ginnaaw rek. non est-ce que day may topp sa ginnaaw. bàyyi ma ne ci ginnaaw rek. ah mais damay bëgg di tàggat yaram gi moo tax may bàyyi may topp sa ginnaaw ndax ma nekk en forme. bàyyi ma ne ci côté bi kon. ah tey nag je rappelle soxna dafay dikk ngir defal ñu li nga xamante ne mooy round up semaine bi bu ko defee nag on va la retrouver tout à l'heure mais tout de suite faisons place à la société en compagnie de Nana Aïdara. www.mikeys.com. waaw kay Nana Aidara tey moom nee nga da waxtaanee li nga xamante ni mooy ma bàyyi la nga yegale. jeu de de hasard xale yi. xam nga man sax bu doon mag yi ñoo koy joué man duma ci wax parce que magum jëm moom yow yaay xool lu la neex kees ko bu la neex nga taxaw fa mais xale yi nga xam ne heure cours day jot. mu lenn na ne instant bi classe la ñu war a nekk nga romb ci kees yi ñu bind nag moins de dix-huit ans je précise. bind ci mooy de 18 ans pourtant xale yi nga xam ne dañoo teel seen blouse ñoo fay fees dell ma dem feeti benn xale rek fekk ko ay vingt heures mu nekk ci pari foot bi euh, excusez moi mu nekk ci benn kiosque du jouet ma ne xaaral ma jël ko waxtaan ak moom ba xam moom lii lan la ci jublu nañ ko seetaan ñu wàcc plateau bi. man 16 ans waaw dama ñëwoon pour jouer nii rek di jënd tuuti xaalis non duñu laaj parce que suñu jëmm ji moo tax ñëw rek dugg gars yi dañuy foog ne ay mag lañ xaalis bi ah des moom lay passé sax di jaay des fois moom may sama mbokk yi mais ba tey xamuñu ne damay joué moo tax. ah wax dëgg fa yàlla nag ni may gisee nii aw ma benn liggéey te xaalis may am yëpp mën naa ne par exemple moom ngay may yëri may jënd passe pour dem école des fois bugguma di ñaan daal du ma yeewoo dem jaay bi bien vrai que xam naa ne baaxul tamit mais ci la ñuy suturlu daal. bon même pas su ma bëggee bàyyi rek danaa bàyyi incha allah. Euh, déglu nañ ko Nana Aidara mu nekk li nga xam mais pourquoi à vingt ci bërëb bu mel noonu est-ce que situation dëkk bi coolee na noonu. Euh, <laughs> te du moom kese ah ñi ma fa fekk dafa bëri je sais pas ndax am nañu beneen image bi mais ñu ma fa fekk dafa bëri te ñoom ñëpp ay xale lañ moins de dix-huit ans déjà man pour man li ko indi bokk na ci démission des parents. wala xale bee nekk nii di dugg nii au calme ah à gis li xam ne guddi lañ ko filmer dem ti pour dem di jouer ji te yeneen morom yi ba ñu sentiree ni damay filmer dañoo daw làkkatu ci coin bi bañ ñu ñu génn extrêmement grave ci réew moo xam ne dañoo nekkat kat euh, jeu de hasard yi dañ ko régulariser dañ koy tere bépp xale boo xam ne ne amoo 16 ans Mm-hmm. bépp xale boo xam ne ni euh, ça dépend du jeu bi en fait. donc mm-hmm. euh, daf dañ ko régulariser tellement que ni xale amul warul am accès ci jeu de hasard te pourtant ñoom ñoo fay fees dell man li may gën a choqué mooy cantine boo dem dañ fay def moins de dix huit ans te pourtant kiy jaay en âme et conscience xam ne ni xale bi mu koy jaay amul dix huit ans bu ñëwee da koy jaay sans problème. mais moins de dix huit ans bu ma ko daan dégg c'est parce que boo ñëwee ci bërëb boobu ñooñu ils 18 ans et plus. ñoom dañu lay xool sax ni xam ne ne yow amoo 18 ans mais ñoom l' essentiel mooy ñoom nañ la jaay rek puisque ñoom en général ci li ñu li nga xam ne moom la ñuy jaay dañ ci am pourcentage du coup ñoom dañuy sawar xale bu ñëw. ñu jël jaay la moo tax ba ma ci demee di ci def euh, benn gëstu ci seen côté ñoom ku ci nekk dangay bañ danaan la daan non société bi may liggéey du nangu ma wax ci en fait du société bi ñoom ci boppam mën du ma blâmer société bi de parce que société bi moom bind na rek teg mais ñoom ñi nga xam ne ñoo wax a appliqué ñoom ñoo appliqué wul jeu d'hasard nag asma pour man lu koy indi ci xale bokku na ci ñàkk di nga ñàkk baaxul mais aussi Nana juste un petit point à préciser xam nga tey xale bi nga xam gagné nu muy def ci société ba. bu demee foofu pour récupérer. non léegi jarutu dem ci société bi ci kees bi nga xam ne ne fa nga joué. dellu nga ñu joxaat la sa ah, xaalis. li nga xam ne moo gën a garaaw encore est-ce que tamit. Euh, société bi su bindee rek teg indi ay liggéeykatam ñu teg hmm. moom xëy na li koy amal njëriñ rek mooy chiffre d'affaires bi muy am mais est-ce euh, bu weesoo loolu au delà ci vente bi mi ngi def suivi bi ba xam ñu ngi respecté euh, moins de 18 ans ou moins de 17 euh, beneen problème la boo xamante ni si na ci yow wax nga lépp est-ce nga ne c'est fait parce que xale yi ñoom ñoo li ñuy indi ci xaalis keneen indiwu ko mm-hmm. donc c'est fait société ci boppam ñoom ñooy bàyyi noonu ñoom ñooy bàyyi noonu di xam ne ne carrément lii xale ñoo koy jënd mais la preuve mooy jeu jeu de hasard yëpp ñan ñooy cible bi dañuy def jeu boo xam ne xale lay gën a attiré que mag mhm. donc ça veut dire que ni ñoom li ñuy def ni c'est un yow ne moins de 18 ans def jeu boo xam ne xale bi lay gën a attiré que mag donc et loolu mën na créer addiction par mhm. exemple nit ki bu demee ba mhm. mais voilà déjà ma may la ci cause yi rek lu koy faral di indi pour man bokk na ci ñàkk dafa am xale bi li mu wax nee na moom day xëy war a jàngi du am lu mu ndékkee mm. léegi ci pari foot dem di def deux cent trois cent mu apporté ko benn mille francs moo tax xale ñoom ñëpp a mokkal match yi ngay def ñoom ñëpp dañ koy xam à la lettre excusez-moi encore beneen bi aussi mooy euh, euh, pap boo xam ne da daan faral di yónni doomam bu mm-hmm. koy jëndal ay ticket dama nga jëndal ma li may bañ a tudd noonu boo demee mu ñëw xoos xool ndax gagné na xale bi déjà papa modèle la sa papa benn modèle la boo xam ne lépp lu mu def pour yow lu jaadu la xam nga fi ñu koy jëndee boo demee ku la koy jaay la nee non sa papa na ñëwal boppam daf la koy jaay nga yóbbul paa bi finalement yow tamit da ngay jël benn jour nga tenté ne xaaral ma xoos ndax damay gagné ou pas eh, beneen bi ko indi teel a tàmm sa doom xaalis xale boo ko tàmmalee xaalis bu ko amul da koy uti lii ni ci bokk na ci euh, euh, façon bu ñu koy utee mais li ci gën a garaaw euh, asma bon pour pauvre lii la patati patata est-ce xam nga léegi dañoo créé benn système boo xam ne application la da ngay toog ci sa téléphone di jouer di pari di pari en en ligne hmm? te amul duñ la laaj âge duñ la laaj dara amul benn vérification amul contrôle parental amul dara application bu siiw boo xam ne xale yëpp yow soxna xam nga ko bëgguma def publicité xale yi yëpp yëpp ñoom bu bu match amee da nga leen di gis ñuy ñuy ñuy parier équipe bi day def ñaari but bii benn but ci saa si lay fay bu la ko fayee viréel la ko ci compte bi nga xam ne moom nga am mun na nekk compte bu nekk ça veut que ne yow léegi soxlatul sax sa doom di déplacé wu parce que bu dee dafay déplacé wu ko mën a tere mais bu dee ci téléphone am la nekk doo ko mën a mhm. tere effectivement mais euh, li nga wax yëpp am na solo ba ci euh, am na xale yuy jouer mhm. seen pap yi wala seen yaay yi bu ñu leen fa fekkoon tëral leen rey mhm. effectivement dóor leen ba ñuy bëgg a dee donc xale yooyu ñàkkuñu mhm. seen pap mi ngi leen di jox li ñuy jouer ji seulement que dafay nekk euh, morom àndandoo moo waa classe ñoo lay kii ngay dem benn bés ngay dem te seytaane nu mu lay tenté. Mhm. da dem jouer gagné dara nga ne lii neex na Issa te torop pour te dire que jeu seytaane la par contre pour appuyer la foofu mhm. noonu ji nga euh, bu baaxul bu xaraam boo koy soog a def ci sa xaalis da lay rapporter beaucoup lu bëri effectivement moo lay moo lay indil après euh, par déjà man xam naa kenn kuñ ma wan ne ma 300 le jouer am 200 000 kooku du ko kooku du bàyyi. 300 le joué am 200 beneen 300 le joué bi nag mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooñu lañ fi teg pour ñu ñuy toppatoo li nga xamante ne day yàq société bi dañuy jóg dem topp ji société bi ne nañu exiger li nga xamante ne mooy pièce d'identité. ñooñu comme lu soxna wax suivi boobu moo daal def. personnellement man man man il faut un retour à la maa ngi maa ngi euh, ñaan Mame Matar comme que moom moo moom moo yor valeur yeeg fii yëpp ñun ñun dañ ko jox rek dañ ko jël jox ko gardien wu valeur mars ak lépp. Mhm. nañu doxal ci loolu comme que kaas nañ ba sonn mun teel mais rapport sax ci mel ni Dip Doundou mhm. Guiss way lu mel noonu ci euh, single ah, mhm, am du sax ñàkk gis ah, ah, dinaa la wax dara gis nga pari foot li mu mën a indil ci xale moo garaaw déjà da lay indil paresse. doo dootoo jàng. doo sawar doo doo sawar yow tout le temps yaa ngi concentré wu ci sa téléphone parce que léegi jógatuñu dem ci kiosque yi ci sa téléphone la ñuy parier beneen bi da indil addiction. te bu ñu xamoon accro ni mu bonee accro ci lépp nag. moom mooy indi dem ba màgg di jouer ci casino yi di parier oto parier kër parier addiction la la indi beneen bi da am manque de confiance ci sa bopp manque de confiance en tes parce que tu vas te dire que ni est-ce que man am naa njëriñ wala xam naa naa def dara daal tellement que tu as l'habitude ci xaas bu facile bi xaas boo xam ne da nga koy parier day yomb mais mais nana du xale yi kese tamit de parce que xale yi ngay gis léegi dañoo dem ba dañ ko banaliser bëccëg bëccëg da ngay romb ci milieu yi nga xamante ni sax fa lañ koy defee mhm. mu fees del ak ay gone mhm. Mm-hmm. bëccëg ak mag ndaw ñoom ñëpp a koy def ah. mm-hmm. donc loolu ça ramène à la question mm-hmm. xam nañ ñu xam ne xam nañ xàmmee nañu léegi dañ leen gis ñuy dem di jouer ci yooyu. mais loolu ça ramène à la question euh, qui revient assez souvent ci Pa Assane mooy kon askan bi ñàkk nañu ba tollu fenn nii parce le fait d'être c'est-à-dire insuffisamment euh, satisfait de ses de ses de sa dafay indi yu mel noonu et que les parents certes peut-être n'ont pas démissionné comme li Fama di wax am na ay parents yoo xamante ni ñoo ngi yor seen ngor seen mën di yer seen ay njaboot waaye euh, la société est-elle arrivée à ce stade Pa Assane sa question dafa dafa pertinente sa question constat la dëkk bi tar na tar asma asma bala ngay xam ne dëkk bi tar na dama koy xool sama bopp rek ngay toog xool sa bopp xool li la war xool li nga war a def tiit massa nag xale boo xamante ni yorul dara war a dund ay bokkam yàlla dogal li mu dogal waaw léegi bu fekkee ni que moo tax et ça me fait mal de devoir toujours me rabattre encore une fois de mm-hmm. plus sur la gestion mm -hmm. de ce pays-là mooy on a mis les conditions d'appauvrissement on a mis les conditions de ne pas faire les bons choix boo jëlee sa àdduna yëpp lal ko ci ay business su terre ay business su BRT nga ne da ngay investir danga bëgg nit ñi bien mais man bala may jóg di dugg oto di dem mais damay lekk naan dama kay dama kaa tal donc nit ñi les gens dans le besoin ak survie asma li nga wax rek la mm-hmm. xiif gi moo ñu xale bi dafa soxla lekk. loolu ñu di la jaajëfal euh, ki nga xamante ni mooy Nana ce sujet c'est encore une fois.